Sene Info dikkati naa ñetteel bi mandat bu président Macky Sall validul bés bi naan maan en tout cas ngay am ndax diggante France ak États-Unis nee ñu ñetteel bi mandat moom Sall doo ko fi laale bi naan maan pression yi nga xam ni président Abdoulaye Wade ma ko doon dudd 2011 yii les pression moo teguwaat ci ndoddu président Macky Sall tribune naan maan nee ñu Macron ma président Macky Sall ñetteel bi mandat bul ko xalaat ca France neexul woon ndax foofee Macron dafa xamal président sénégalais bi nankoon ñetteel bi mandat saw askan bëggul bawal ndax nag mënoo taxaw ci nguur goo xam ne yaa ngi ko fu xarcee ci loxol Abdoulaye Wade moom président Abdoulaye moom moomee ñetteel bi mandaa moo ko jural nërmeeloom te ba ñuy xeex ñetteel bi mandat danga caa bokkoon gannaaw bala sénégalais yi wooloo fal la yow sàll ngaari lam tooro bur nga ni leen ci ñaar yam yem 2016 nga laal constitution bi soppi soppi lu ko ca at ya xam ne mën nañ ko toog ci nguur gi waaye nag mandat dafa mel ni techniquement daal da nga bëgg jaay nit yi xel ne leen mën nga faluwaat 2024 tribune yéen a kaay mel ni ku naan man président Macron day bu ci duggee léegi way wi am ndaat saay ndax Africa ma nga naan Macron dafa insister insister waat ci président Macky Sall naan kon baal te naan kon xam nga boo bàyyee sax yow Sall ngaari lam tooro Bourguédé am na yeneen i bunt yoo xam ni mën na ubbeeku ci yow seen international baa ngi kenn moomul Sall lu la neex këfal ne ca di ko jox exemple Abdou Diouf di ko jox exemple Issoufou tribune yéen kaay naan man source bi daal ma ngay xam le ni moom Macky Sall dafa mel ni ku jox Emmanuel Macron noppub tëx di def na déggul waxul wii waxul non leeralul ko dara yéen kaayub dee média bi naan man am na responsable bu mag ci réew mi ma ngay weddi yooyu le kàddu naan Emmanuel Macron mësta yedd président Macky Sall Walf Quotidien naan du dëgg Occident ci boppam ma ngay artu président Macky Sall muy Élysée muy Maison Blanche ku ci nekk nag ma ngay xamal président Macky Sall naan kon bul ko laal bul ko jege L'Enquête Quotidien naan man saa si tembe troisième mandat bi enjeu international la ci boppam ma Emmanuel Macron yedd na président Macky Sall du deñ waaye nag ca bi boo ko jëlee yaa ko moom boo ko jëlul yaa ko moom waaye coow li coow li mooy diggante Paris Washington la ñuy waxtaane jamono jii du lenn lu dul mandat président Macky Sall bii critique yéen kaay moom dafa xëy sampub laaj lan moo làqu ci ginnaaw mandat bi ba président Macky Sall ngooy ci lànk na nag du ko bàyyi bugaan gay dani ci la mandat yéen kaay naan kon xanaa nguur a neex rek xam nga boo ajoo da ngay bañ ku téen te waa ngi dëgg-dëgg dafa koy bañ ci réew mi naan leen def lu ne weng te dara du la ci fekk nguur a koy maye dafa neex moo tax nag boo yéegee doo bëgg wàcc les fa yéen kaay ne ko may ma rek ñu jeexal troisième mandat ñëw ci yow yéen kaay bi naan kon saa si tembe moom président Macky Sall ma ngi koy yóotu ci réew mi gaa yi bëgguñu mën naa juraat nag ci réew mi la amoon 2011 jàpp 2012 ca jamonoy maître Abdoulaye Wade yéen kaay bi naan kon ca wet ga am na ci ñoo xam ne ay kàngam lan ci wàllu politique nekk ay leader yoo xam ne deesu leen lam laa meeti ci réew mi te ba nii kenn xamul seen bokk ci yi mën naa amum déet xoolal opposition boo xam ne buñ ca génnee Ousmane Sonko lu cay des te saa si tembe ci e écarté ko lañ nekk loolee nag mën na jural réew mi fitna goo xam ni maar day taali lee fa ne ma buñ jugee jaar ca parrainage ba bari na ñoo xam ne daañu leen ca kale te loolee mën na jural ci ay manifester Alioune Tine naan saa si tembe day présidentielle 2024 gii ab niir la boo xam ni lëndëmal na réew mi te dara nag du ko yokk lu jul yenn ci candidat yoo xam ne ña ngi leen di naj te saa si tembe réewum Sénégal li ko lëndëmal mën koo suuxal mën ko tàbbil ci lenn lu dul ñaar ñi troisième mandat bu président Macky Sall bi sénégalais yi ne bëgguñu waaye tam yeneen opposant yoo xam ni saa si tembe moom it Sall ma ngi leen di nal di leen éliminer nice ak feem gu doy waar Alioune naan li des ci réew mi mooy dialogue waxtaan xam ngeen diggante Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf la taxoon mës ta yàqu te it mësuñoo dugg ci guuta mooy même bu président Wade duggoon kaso dialogue bi daf fi daan nekk ngir stabilité réew mi réew mi ko dajee naan man présidentielle 2024 gii ngir ñu àgg ca dana metti wala ku ca bokk rek jàppal ni yaay jàmbaar ndax nag ay état bi étape ngay daal di jàll ngir mën ni saraax ni présidentielle bi maa ngi tribune yéen a kaay naan maan réewum président Macky Sall mi ngi réew moo xam ne dañ ko xamal ne sa goro yow goro national dafa luubal moom ministère am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards furaas daal di xidéem ci loo xam ne dañ ci wara war a financer ab projet bugaan gay dani daal dina def lu ne neweng la de te boo moytuwul nag du mujjee fenn ndax sóora intouchable la kenn du ko laal ci réew mi xool leen fi sóora jaar ak li nu ko jiiñ lépp li tegu ci ndoddug sóora ci ministère des transports ak tey te sóora kat tey la ay mbiram gën a dëgër bugaan naan boo moytul 98 milliards bu fond bi France daal li xidéem noonu lay mujjee Dakar Times naan man plainteeti nañu Ousmane Sonko njiital Pastef nag war a wuy ji ca OFNAC wàllu foncier ba ca ngor lañ ko taxal yéenekaay bi naan man ab wokaal la ñu def famille Dupont ñoo ko daal di def tuuma ci Ousmane Sonko ak Tahibou Ndiaye mouvement xeexal Sénégal yéenekaay bi naan man ñoo yenu xeex ba plainte nag Ousmane Sonko ca financé leen tàggat leen ba ku ci nekk mën a demal boppam le soleil yéen a kaay ne ma moom président Macky Sall day servir na guddoom ñu war a taxawal nag liggéeyu rive gauche ba ca Pakaaw ba waaye tam maison de la jeunesse ba war a taxaw ca guddoom commune lu toll ci téeméer ci ndaw moom président Macky Sall fas leen yéen a wutal liggéey ca guddomp googee l'évidence yéen a kaay ne ma guddomp fala la Souleymane Ndiaye fekk baax moom jiital SAPCO nekkit leader bu S2D président Macky Sall ne ko bég naa ci yow de ne ko ne ko Souleymane yaa ngi ci yoon yaa ngi ci liggéey bi mobilisation jaar na waaye tam lan la dénk yaa nga ca ku domp bég na ci yow ak Sénégal le soleil yéen a kaay ne ma en tout cas président Macky Sall ma ngi ca liggéey ba ca Sédhiou lii yéen a kaay ne ma coalition républicaine sàmm suñum réew ma ngay rafetlu nag fukki mesure ak juróom-ñett yi nga xam ne Sall jël na ko fa Pape Modou Fall naan xam nga ku yëkkati quatre cent milliards teg ko cib gox gox googee bëgg nga mu daal di suqaliku te naan waa coalition mobilisation bi rafet na waaye nañu dégg waxu président de la république mooy unité ak solidarité waaye tam générosité xeex ba ca pëndum teen ba gaañ amul baaga moo Modou naan coow li coow li mooy ndamal président de la république 2024 lu ñu xeex te xeexuñu ndamu président Macky Sall 2024 xeex bi furaas la sursoir naan man Idrissa Seck moom ma ngi ca mbir ya saa si tembe nag ma ngay defar gannaawam de njëlum carburant ba ca conseil économique social ak environnemental daal dinay teeree ca tribunal Walf Quotidien naan man nañ toog rek opposition baa nguur gaa ngi ci xeexoo moom idi moom ma nga cay profitoo di doxal Moussa Diaw naan dafa muus Serigne Thiam naan leen saa si tembe candidat la bëgg posé waxtu wow direct news xamal ma ni door waragee ngay doxal ca salon bu technologie ak émergence ca Paris dañu ko faa honoré ndax nag la mu def ca Casamance amul benn doomu gox ba koo xam ni def nga ko fa waxtu waw Sud Quotidien naan man nañu gestu napp gi saa si tembe day daal dina yëngu bu baax ci réew mi Le Quotidien Le Quotidien naan man nañu bàyyi xelit ni woppub ngaana daal dinay del suwaat ci réew mi lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci kaa daal dinay am ci réew mi 2022 ak tey L'Observateur naan man nañu bàyyi xel effort it ab projet musical la boo xam ne ay soxna lay dajale ñu war lalu fukki fan fan génne album boo xam ne jàppale néew ji doole jee ko tax a jóg l'observateur naan maan ñu bàyyi xelit xale yi nga xam ne ay góor lañu te ñu leen di sàkk buñ ca génnee xale yooyu e day buñ leen toppatoowul ñu sarax ci leneen lu bon wala it ñu am traumatisme boo xam ni maar day taali man na dem ba jural leen tàqali koom sago tribune sport naan man saa si tembe day Sénégal a ngeeg sagoom laal leen bant ma xamal leen ni CAN U20 Sénégal daal dinay qualifié ca quart de finale ba niki démb niki démb benee la wulli Samba Diallo moo ñu yóbbu ca quart googee jàpp leen ni ki démb ca classico ba ci coupe du roi Barça daal dina fay wulli Real Madrid waaye lu mu metti méttit bu leen fàtte ni Real ci fayu la gën a aay ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm